donc ñooñu jëluñ seen responsabilité en plus clair ma xames mu mujj wax di yërëmtalu na ay médecin ñu ngi dee dimbale leen ñu góorgóorlu mm. leen ban décision formelle pour prendre en charge la troisième pandémie nga dégg sur la dernière kon scientifique yëpp dañu leen écarté ci ci ci au dernier moment am na am na mm. terrain bu ñu lay ambiance football boo bëggee football bu mm. ñu jox la bal terrain de football ax bal mais bu ñu la demal football ci terrain basket <laughs> da nga da nga dafa mel ni da nga bëgg wax ne politique yi dañoo accaparer mbir mi te or que ñoom duñ ay scientifique. Ah, en tout cas di désavoué que c'est les politiques yi ont accaparé bu fekkee man tey médecin. Hmm. ministre moom may moom ne wax naa loo xam ne amul ci dëkk bi. Hmm. Euh, te mu ngi mais est-ce est que xaaroon nga bi ngay def ces révélations non c'est quand même waaw mais peut euh, <laughs> pour certains docteurs puisque nag am na ñoo xamante ne xamuñu ko woo. même si vous n'êtes man peut-être. yoo xamuloo kër sëriñ. si man mën naa ko xam keneen mën naa ko xam docteur na ko xam. c'est-à-dire que vous n'êtes pas la première personne. bi yëkkati kàddu yooyu saa dañ la koy dañ la koy ah, nangul. loolu dañ lay nangul ne du yow kese yow yaa ko ah, wax. am na ñu wax ci CTE yu ñu tëj muy ministre bi. am na ñoo xam ne dañuy wax ci li nga xam ne moo jëm ci garab yi muy taskatu mm. xibaar boobu ngay wax. Ah, que ça soit clair ministre bi li mu wax mooy CTE yi tëj Euh, journaliste bi wax ne garab yi nga xamante ne wala matériel yi ana fu ñu ko dugal ce sont des questions yu posées mais yow hmm? est-ce que tey li ñu la laaj ci mooy est-ce tey hmm? bi ngay wax li xaaroon nga ci une plainte hmm? boo xam ne dina dal ci sa kaw non xaaruma plainte parce que man euh, yàgg naa wax lu gën a grave li yàgg naa wax lu gën a grave nee naa ay ay doomu ministre ñoo ñoo ñoo fi ñooy commandé américain ma ni fii seen kanam la def naa erreur pour no pour no soulever le nom d'un professeur <laughs> donc mosuma mosuma teggi sama tànk seulement nee nañ ma attention bul tuddati ay tur. Mhm. mooy tur tur yi euh, waxal li ngay wax en général. ñan ñoo la waxoon loolu. non samay mbokk. <laughs> <laughs> et pourquoi maintenant. pourquoi lan nga jàpp ne moom moo tax tey. kàddu yooyu nga yëkkati. waaw jural la plainte bi tukkee ci ministre bi ñu denk wàllu wér bi yaram. mais am na lu ñu essayé wul. j'ai reçu des euh, <laughs> Bougane bien placé j'ai reçu des relevés de nu mu tudd nu mu tudd sax contrôle fiscal. Ah j'ai reçu des contrôles fiscaux et sous forme de menace euh, dans deux mois euh, nangam nangam bu mois de juin d'ici mois de juin boobu moytu la ñuy ñëw def loolu mooy lan. donc da nga bëgg a wax état état kenn du wax ngi gën a mi ngi gën a law. mi ngi gën a law loolu moo tax ma ne est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps. am na ñu wax ni pendant qu'on est tous les médecins. on a besoin d'être euh, là-bas dans li ma may fii tey c'est comme ni ma nekkal on est un mais il y a un hôpital de de jour de kii bu ñuy monter tellement euh, les gens on veut pas qu'ils soient par terre. voilà tey on s'est battu pour l'oxygène pour mm-hmm. qu'il soit accessible. Hein? Il y avait des problèmes, on les refusait. Mm-hmm. Mais réunion au démo bi, ils l'ont reconnu que une réunion, ils des produits, ils ont fouillé les fournisseurs à qui ils devaient de l'argent, mm-hmm. hein? qu'ils vont payer et ces fournisseurs vont leur donner l'oxygène euh, gratuitement. Est-ce que ces présidents vont intervenir? heureusement qu'on a quelqu'un qui écoute quelque part parce que am na décision yu yu génn man sans problème avec l'État xëy na ma non euh, del wax rek mais bul ne pense pas qu'on n'écoute pas. alors docteur <laughs> par rapport rek euh, chaîne de contamination bi ñu ngi wax ni rompre ñu ko am nañu gis ni CTE yi nga xamante ne ni moom la ñu def ci biir hôpital yi. Hmm. dafa yokk propagation virus bi. Hmm. est-ce que loolu waxu profane la wala effectivement loolu mën na yokk propagation virus bi. non parce que bu yokkoon propagation virus bi médecin hmm. que booy dugal euh, malade dans un CTE. il y d'abord des conditions physiques et il y a des conditions de vestimentaire que ñi fay liggéey war a am bon léegi nag c'est vrai que ni ñu ragale woon feebar bi yaa gis ko feebar jël taxi tranquillement toog ci taxi bi dem doxi soxla mm-hmm. alors qu'au début dañu naan wax toogal seen kër le SAMU national va venir vous chercher mm-hmm. bon foofu aussi il y a eu la stigmatisation les gens ont refusé que les les viennent. mais au moins y a des gens qui prennent leur, leur téléphone discrètement nous et on leur mettait sous sous couverture transporter leen tranquillement dans un hôpital mais léegi da ngay gis kuy def scanner day dem scanner tranquillement li mu sol lay sol c'est à la limite bu solee masque mm. mais léegi am na si yenn euh, département yoo xam ne nii ñu ngi ci biir hôpitaux yi mm-hmm. pratiquement dañuy dégg population bi di jàmbat ni fajatuñu priorité bi corona la ñu ko def maintenant et les autres pathologies doo mën a créer benn matériel maternité <laughs> tëjuñu. tëjuñu mais en fait dañuy dem ni wax ni. non si ñun problème bi ñu am gën a privilégié c'est des fois les malades qui disent que dañu ragal hôpital. Mhm. te ils ne veulent pas venir. Mhm. Hmm? d'accord maa ngi nii di benn xarit ah nee na hôpital nañu ko wax defar par téléphone <laughs> donc pour te dire qu'il a des exemples typiques comme ça des gens qui veulent plus aller à l'hôpital. Mm-hmm. alors ci wàllu vaccin bi déggu nañ la dès le départ. Mm-hmm. nga amoon ci benn position. Mm-hmm. ndax position boobu nga taxawoon ba tey wala changé nga. ba léegi vacciné wu ma. <laughs> ba léegi vacciné wu. ba léegi da nga gën a lu grave. assurance yi nee nañu képp ku vacciné tu es en essai thérapeutique. ah alors loolu. loolu yow en essai thérapeutique. loolu yow nan nga ko gisee le fait ko aujourd'hui yenn entreprise yi wax ni ku vacciné wul doo fa liggéey. mais moo tax débat baa ngi débat baa <laughs> nu koy wax en wolof débat baa ngi xaw ma lan <laughs> mm. ah, politiquement Hmm? En France, c'est passé jusqu'à l'Assemblée nationale. Il a des histoires. Ah, au Sénat, il a eu des histoires. Absolument. Il y a eu des marches. Mais à cas vaccin yi léegi boo déggee il y a sociétés qui veulent le faire. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, les syndicats sont levés. léegi boo déggee par exemple ay nit euh, wax ni. bu ñu la déggee boobu ba tey euh, ak li nga wax léegi vacciné woo. c'est quoi le problème? non le nature d'un vaccin technologiquement on peut le produire maintenant en trois mois. Mm-hmm. mais période bi ñu koy dugal yaram. ndax li muy def sa yaram ak li mu nar a def si yaramu Dimeta yaramu Diop ak sama yaram du benn. kooku il faut dix ans ñu jël ay volontaires. mooy li ma leen wax. des des gens qui sont en essai thérapeutique. de façon volontaire. nga dem nga bindu nga ne ah man dama bëgg a bind dimbale l'humanité essayé leen ci man. ak lu ci na fekk. ah parce que da engagé wu. am na société yu ñu lay fay sax. am na li boo ko waxee sénégalais yi dem di vacciner en masse est-ce que duñu ñu duñu gën a réticent. parce que aujourd'hui campagne bi <laughs> du ko mos a wax. du ko mos mais d'accord mais docteur est-ce que lii. du tey laa ko mos a wax ba am na projet scientifique yu may jàppale. de vraiment Lantiga xaw ma Santiga nu mu tudd sax un professeur unanime de d'immunologie tey la wax ci comment ça euh, il est à Fann. voilà radio le radio mm-hmm. maintenant soo dégloo par exemple. maintenant nag a mm-hmm. l'enjeu national qui est là. Mm-hmm. est-ce qu'il faut se taire. bon et dire. Euh, euh, parce que maintenant est-ce qu'il faut se taire justement <laughs> est-ce qu'il faut voilà. se au <laughs> nom peut de la stabilité du pays wala apaiser peut-être askan wi est-ce que war a noppi léegi ñuy vacciné wu ñaata ñoo si feebar ñuy vacciné avec deux vaccins ñaata ñoo attrapé le delta bari na voilà léegi ils disent nag xaw ma boo ko jàppee doo am cas bu grave mais kan mooy dem di di sa boobu tëddee si lal di nekk en intubation. ñu lay xool ndax cas grave wala léegi dañuy wax conscience professionnelle. Euh, nga war a def sa liggéey convenablement. Hmm. ñu gis beneen situation bu taxaw. Hmm. yow tamit nga war a dalal askan wi ci ñaar yooyu ban nga ci tànn. bu leen dasal dalal ci fen lu sëriñ lu sëriñ Tivaouane bi wax. wax dëgg sëriñ Tivaouane lu ñu wax. nañu wax dëgg askan wi. d'accord hmm. et le résultat yi lii ñaata ñaata Sénégal ñoo vacciné wu sur les 17 millions. àggaguñu un million. temps yi la ñu leen tiital xam nga dañu di tiital ne la kii delta bi ñëw na boobu ak sinon da ngay dee. mais docteur est-ce que position yi. du position yi nga amee position yi nga amee nii moo tax gars yi vraiment ñu tegale de côté. au moment où ñuy bu ñuy woote ñoom. ñuy position bi may wax wala beneen scientifique wala ñu mere la sax. non mais bu ñu ma meree ñu ngi campagne pour ñu dem ñàkk ji yow nga toogaat fii. mën nañu ñàkk bi ko wax de façon scientifique. man li may wax nii jox naa leen ay détails. Mm. nee naa leen vaccin bu ñu dugal sa yaram tey. ah madame Dimi madame euh, <laughs> Dimi wala Fatou. est-ce que xam nga lu muy def dans dix ans sa doom boo koy jur pourquoi alors pourquoi euh, ñu yegg tey fi nga xamante ne état yu bëri dañuy sensibiliser hmm? seen askan pour ñu vacciner wu lan la ci jublu docteur parce qu'ils ont échoué tout le reste hmm. ils ont échoué tout le reste président France moo ne woon bu leen sol masque du am amul njëriñ hmm. parce que nga ko dégg États-Unis ancien président bi fa jógul mu wax nee na yu feebar bi amul donc on a eu excusez-moi di vraiment. on a dit trop de bêtises. Hein, pour après vouloir se rattraper. la population est sceptique. on a une politico-scepticisme sceptique. mais mais li nga wax ni est-ce que ñi ngànk kër docteur. ak ñi nga xamante mooy état bi xam nañu ko boo waxee ne ñi ko vacciné day am ay conséquences ëllëg. mu doon peut-être jàkkaarloo ci. ni ñuy trafiquer léegi avec les tests gis nga ne tous les cabinets ont acheté des tests pour les faire. Hmm? nga defe ne vaccin bi bu fekkoon ne au delà de l' argent ça pouvait être intéressant nga defe ne cabine bu nekk du dem jëndi ko en Inde walla jëndi en Gambie. ça veut dire que c'est pas non c'est pas la conviction moo ci manqué. la conviction des soignants. sur les vaccins moo ci manqué. alors. <laughs> bés bu ñu médecin yi bés bu ñu convaincre te en même temps. Euh, bëgg a liggéey non seulement dañ ciy am. mais en même temps dañuy rendre service. alors And Gueusseum ngi def na conférence de presse. Hmm. wax ni le Sénégal et au bord du gouffre. décrire vraiment la situation sanitaire euh, ni c'est inquiétante est-ce que partagé nga avis boobu. sincèrement et c'est pas au niveau sanitaire qu'il y le problème à eu c'est au niveau problème politique et au niveau financier et au niveau de gestion. Mhm. yéen fàtte ngeen ko mais milliards mille milliards ma ko <laughs> mille milliards tey boo ko tegoon tey tu aurais les plus beaux hôpitaux du Sénégal. d'accord la santé la la santé pour tous. voilà yi à chaque fois dañuy wax ni ñoom seen préoccupation mooy askan wi ku feebar. mën a faju alors est-ce que yéen ñi nga xamante ni tamit da ngeen bokk ci circuit sanitaire bi. est-ce que yombalal leen loolu pour hospitalisation yi mën a yomb parce que gis nañ des ay devis xam ne nit ñi dañuy fay ay neuf cent mille. un million voire même deux cent millions de euh, francs deux millions un certain monsieur 900 000 d'oxygène la mu ne ko nag da nga ñàkk chance prix bi defe naa <laughs> lundi lay commencé xaw ma. est-ce que yombal nañ leen ko. ci wàllu taxi exemple bi ma lay wax. oui madame xam nga ne ay marocains ñu ngi ñëw Sénégal. Mm-hmm. di fi formé wu en spécialité. xam nga man tey bu ma jaaxlee marocain bi daan def sama stage sama clinique moom laa ko moom laay envoyé malade bi au Maroc. d'accord. vous avez vu ça loolu sa veut dire quoi ça veut dire Sénégal dañ ñu soxare nangu ñu jox les moyens de parce que dañuy yaakaar ni après. dañuy soxore dañuy soxore si. malheureusement malheureusement docteur. mais tey le marocain bi ñu ngi fii ñëw fii en 36 ans j'ai de tout venir. d'accord tey bu ma demoon seen cabinet wala seen hôpital. Mhm. d'accord alors malheureusement waxtu bi jot na en tout cas li ñu bëggoon a xam yëpp par rapport ak mbas mi ak sa position. Euh, yi nga amee ak yu léegi leer na par rapport ak sénégalais yi ñu doon xaar euh, émission bi jeex na ñu la nga joxe sa dernier mot. non man maa ngi euh, Euh, la population mu ñu gën a farlu les mesures barrières ça marche mm-hmm. bu ngeen gisee ay médecin di yendu ak ay malade di fanaan ak ñoom di lekk ak ñoom mm-hmm. di raxasu rek ak di sol seen mask mm-hmm. di ñibbi seen kër du ñu contaminer seen waa kër donc ça veut dire que les mesures barrières sa marche képp ko sa yaram may nga am capacité nga bañ am ay morbidité utiliser le système boobu yowee ci kanam ku dem bi nag xamatuloo foo dem. Mm. te ñuy wax euh, lu nekk. Mm-hmm. bon kooku tamit c'est un choix. <laughs> personnel booy jël nga xam li ngay def. d'accord d'accord nañu dimbale nag les ministères les gouvernements potentiel médical bi ñu am Sénégal. Mm-hmm. l'université de l'Afrique de l'Ouest. qui la première. nañu del nañu dimbale mu dellu ci kanam. à fait. Sénégal yi man ci profiter. Sénégal yi mën a faju ci jàmm. pen matériel bañ fi manqué. Mm-hmm. te matériel bi mu ngi fi. Fichtin serment convocation maa ngi koy répété c'est à cause de cette convocation là que l'on arrive à soigner les gens ce matériel am na fu muy jaar te waru bu nekkoon tey place am Sénégal ñu bëri dañ ko réglé tout merci à vous euh, docteur Babacar ñuy fàttali ne yaay médecin chef euh, bu suma assistance ñu di la ci disponibilité malgré xat-xat yëpp di la bu baax a baax ci wuy si bi mbokk mu nekkoon seen émission seen show amoon mbégte lool ànd ceeg saa su ne Fatou Abdou ak Ndeye Dimbe Ndaw demain ëllëg yeneen waxtaan dina fi